Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et la cloche de notification. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahabatihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi l-aziim mbokki jullit yu baax yu tedd yi yéen ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala li mu denc ci nuyoo boobu yàlla nañu ko yàlla sottil ci réew mii di Sénégal defal ko mboolem réew jullit ñëpp waaye defal ko mboolem adduna bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mbokk yi ñu ngi jublu xew-xew bu am solo xew-xew bu mag te mooy al udhiya mooy tabaski di sunna soo xam ne dafa war bépp jullit boo xam ne mat na mukallaf nekk gor mu nekk sunna waajiba ci moom bari ay ngëne lool jar def effort bu nekk pour bokk ci ñi koy dundal ndax dundal ko mooy dundal sunnay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye effort boobu ngay def du tax mukk nga toggoo ci loo xam ne mënoo ko ndax yàlla lim ñu sant yëpp daf dañ koy defee kemtulaay suñu kàttan waaye coono bu màgg màgg màgg jar na ko pour am ko waaye boo ko amul rekk nga nangu ni amoo ko loolu mooy li gën muy sunna bu war nag boo xam ne yonent wax na sallallahu alayhi wa sallam ne digal nañ ma tabaski digal naa leen ko mu nekk sunna ci yéen umirtu bil udhiyati fa hiya lakum sunnatan digal nañ ma tabaski waaye mu nekk sunna ci yéen mu nekk nag sunna bu am doole bu am ay makaan bu kawee ci lislaam ndax borom bi lam ko lënkaleet mooy li gina a màgg ci xeet bu ñuy jaamoo yàlla te mooy assalaat te mooy ba muy dëxal yonent bi kawsara ne ko inna ataynaaka alkawsar waaye lam ca teg mooy fa salli li rabbika wanhar ñu ne loj googu ngay wanhar boobu mooyu tabaski mu nekk sunna nag bu war te lépp loo xam ne dafa war nekk sunna boo ko jëfee am ca pay waaye boo ko bàyyee am ca mbugalu yàlla loolu la alamawul usul yi di wax ne fa waajibun almaxkuumu bisawaab fi fialihi wa tarki lil iqaab nee na lu war daal boo ko defee yàlla fay la ci waaye boo ko bàyyee ngir doy dal ko yàlla mbugal la ci kon nag mu nekk sunna bu am doole waaye nag am ay suruut nag ay sarta mooy li nga war a rey lan la war a doon ulamaawu yi nga xam ni ñooy almasaahibul arbaa ñoom ñëpp dëppoon nañ ci surut bi nga xam ne dafa war ñoom ñëpp mutafaqun dëppoon nañ ci ne li ngay rey dafay bokk min bahimatil an'am ñoom ñu tegtaloo ci aay bi borom bi wax subhanahu wa taala ne wali kulli ummatin jaalna mansakan ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام Ibnu Kasir ne na bahimatul an'am mooy al ibil wal xanam wal baqar ñett yi képp ngay mën a tabaski mooy gëléem wala nag wala xanam xanam buñ ko waxee na dugal na xar dugal bay ñu ne loolu mooy bahimatul an'am yi rek ngay mën a tabaski xar mi ngay tabaski naka la war a tollu ba mat mu tabaski wala nag bi ngay tabaski nu mu war a toll ba mat tabaski boroom xam-xam yi leeral nañ ko aljaso min li ngay tabaski mooy dafay mat at bu fekkee xar la am na ñu ne déet na mat juróom ñett weer bu amee samaniyata azhur rek mat na tabaski saniyu min al maasi bu fekkee bëy la dafay am at ba dugg ci atam ñaareelam saniyu ci ci nag mooy boo xam ne dafa dugg ci atam ñeenteelam saniyu ci gëlëm mooy boo xam ne am na juróomi at ba dugg ci atam juróom benneel yii bu ci manki atam yii matul tabaski waaye na bokk na ci surur yi ñoom ñëpp dañuy mucc ci mbooleem xoyub yi benn du ci am ayib benn du ci am ayib ayib yi mooy ban ak ban mooy ñeenti ayib yi yëpp du ci am mooy al arja wal awra wal maridatu wal ajfa xar mi ngay tabaski du nekk bu laggee laggi bu leer boo xam ne ku gis xam ne xar mi dafa laggee du nekk bu pattee boo xam ne bët bi dafa patte wala mu nekk bu feebar boo xam ni boo ko rayul mu dee boo ko ray bayee mu dee yépp ci bokk yem wala mu nekk bu lompoñ lool yooyu yëpp benn mënu ko ci bokk na ci ay bi sax mooy li ñuy tuddee al atama mooy boo xam ne laysa laha asnaan amul benn bëñ wala maksuratul xarni almudmi boobu du ci am boo xam ne bëjjën euh, bi dafa damm ba pare di nàcci bu ndee loolu la du mat tabaski waaye itam boo xam ne nopp ba dafa xotteeku la ëpp sa nopp ba yépp a xotteeku ba tey du ko mat mooy masquqatul usni iza kaana saq aksar min asulus ak lu ñu tuddi assakaau te mooy adimatul usuna yi boo xam ne amul nopp yooyu yëpp benn du si majesté kon bi ngay mën a rey dafay nekk xaaliyatun min al uyub raflewu ci mboolem ayib yi du am ayib waaye yi ñu rey yëpp olamaa yu wutee nañ waaye bi gën ci masabul malik mooy xar xar bu góor moo gën boo amul xar bu góor xar bu jigéen moo gën kon xar mu góor moo gën xar mu jigéen xar mu jigéen moo gën bëy bu góor bëy bu góor moo gën bëy bu jigéen bëy bu jigéen mooy gën nag bu góor nag bu góor moo gën nag bu jigéen nag bu jigéen moo gën gëlem gu góor kon ci ki ci malik maliki xar moo ci gën dafa safaanoo ak ñi nga xam ne ñooy def adiyu bu fekkee ca màkk la fal ibilu afdal gélem moo gën waaye fii xar mooy moo gën mbokk yi kon nag ñu ngi ko jublu jullit bu nekk mu nekk gor nekk mu war nga def sa yitte pour am ko pour dundal sunnay seydina muhammad dundal tamit màggal lu yàlla màggal ndax wax nañ ne wa man yuasim saairallahi fa innaha min taqwa alqulub te al udhiyatu min saairillah tabaski mu ngi bokk ci màndarga yàlla yi képp ku ko màggal màggal nga lu yàlla màggal te ku yàgg ku màggal lu yàlla màggal yow bi yow yaa moom kon ñépp góorgóorlu suñu kemtu lay kattan ba dundal sunnay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo góorgóorloo def effort nag ba sonn amoo nga xam ne yàlla ñëw na ak ñàkkam te mooy teg jaamum lu ko soob nga nangu loolu waaye bul toggoo sa bopp coono yoo xam ne bu paasee bor bu yaatu topp la ci boo dul mën a fay yoo yëpp du ko jar bula la ne boo lebee bu paasee nga am loo ko fayee jar na ko waaye nag bu la leerul ne doo am loo ko fayee yàlla tegul la loo mënul kon bul teg sa bopp loo mënul te bu fekkee yàlla rekk tax ngay def yàlla lim la sant boo ko mënul mënoo ko waaye nag bu nekkee nit a tax ngay def nag kon nag toggal coono boo paree doo ci am yàlla te loolu dara jaru ko jullit buy def dara na def ngir jëmmi yàlla ji subhanahu wa moom mi nga xam ne moom ngay jaamu jaamu woon nit ñi defoo ngir ngistal waaye dem nañ ba toll ci jamono joo xam ni ñu ëpp ci ñun bu ñuy tabaski ngista la tax jënd naa xar mu rëy te jëndaloo ko yàlla ndax danga koy jënd pour nit ñi gis ko ni yaa ko moom wala dëkkandoor yi gis ko kooku yàlla génn na ci te allasina hum yuraun yal na yàlla musal ñu ci ñooñu ci barki jaamu bi seydina mu sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jublu ci yàlla yàlla yewee na lépp may jullit ñëpp ku si nekk jooxe sunna su màgg soosu yal nañu ko yàlla defal ci barki jaamam bi Seydina Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmani rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم